ñun kawlo rek moo ñu ñor tay def nañ mbir mo xamné ni tay je pense que Kaolack gep gis nañ ci sen bop le ministre de l'intérieur mang koy maa koy féliciter de passage ci liggéey bu am solo bi nga xamné ne mu ngi koy liggéey. ci bir Sénégal gépp wërngal kep dañu indi won tay 5000 masques ñu joxé ci mairie bi lo bu am solo wat plus de 3000 masques ci le marché kaolak bi ni vélo Jakarta fep fu stop nek jox nañ la masques bañ ci pare nga xamné fi la fi la doré ba fi ci nga tamit dañ fay indi ay alimentaires parce que nak aussi tamit olof ñaan nee na say weewu tank mo tax it tey ñu ñëwoon tamit kër gu nekk ñu duggal fa ceeb duggal fa diwlin duggal fa sabu pour jappal leen feccum liir nak bu nexé nday jaa ca mbagg ya ñun ay ndaw lañ rek ndaw yu engagé té tey dañoo jël bolé suñu bop gëmit suñu bop xamna ñun amuñu lu kaw lak liñu yalla xéewal ñu jël ko indi ko fi ci lak

actuellement tey ci ngoon gi tamit war nañ war nañ wër daara yi nga xam ne ñuy Kaolack tey ñu dimbali leen ci ceeb diwlin loolu daal moo nekkoon tey lii nga xam ne tey moom moo ñu indi woon Kaolack. di sant son excellence monsieur le président de la république ndax aussi tamit comme li ma waxoon sànq rek pencum riir bu pencum riir bu bu neexee rek nday jaar tee ca mbagg ya te it aussi tamit euh, yàlla ndokk ba ñu yàlla maye président bi nga xam ne nii tey am na compréhension. que les bi mu li nga pour population pour donc on ñu ko ci ñu euh, félicité ndax que ne manam rew mënul def ñun ñu takku ñun tamit di mooy ki ma mooy ki ma wax léegi nii nga xam ne mon grand frère monsieur Doro aussi tamit di remercier aussi tamit bu baax a baax a baax a baax a baax police nationale. le commissaire Diop ñu ngi koy remercier bu baax a baax a monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñu ngi lay seedal ne la commissaire bi ñu indil fii ci Kaolack sant nañ ci gërëm nañ gërëm maanaam gërëm nañ la ci wasalaam. ci socialam ci bëgg lu baax ak jàppale jeunesse réew mi ak jàppale ñi nga xam noo nekk Kaolack te néew doole ndax dëkk boo dem bu ne rek am na ñu fa ne ci jamono jii soxla ndimbal rawatina suñu dëkk bi nga xam ne am na lu dul Kaolack fonk na lu dul kawlax Kaolack la ñuy tiitaroo lu mën a am ci àdduna Kaolack lañu koy indi moom nag mu jóg doon koo xam ne gone la waaye gone gu am njariñ la ndax saa maam daana wax naan nit doo koy topp njariñ a tax moom nag dafa jël li nga xam ne mooy ay ay ay ay ay ay alalam di jël li nga xam ne moom la war a indil waa Kaolack di xeex li nga xam ne te jii fu mu dugg rek koj bu mu dugg ñooñu du ñu fa génnee ñooñu den gis seen bopp ci moom loolu nag nit ko baax koy def moom li mu wax mi ngi ci te Cheikh Ibrahima Fall dana wax naan ëllëg ñu bàyyi ba keroog yombal xëyam ñu bàyyi fay wax bàyyi jëf moom nag mi ngi ci jëf ci jëf la toll te mi ngi ci kon dañu koy ñaanal sa borom guddal fanam ñu bëgg

où tous les Kaolackois convergent le matin. am na ñuy liggéey fii ci mairie Kaolack ñoo xam ne ñii ñoo koy njëkk a soxla am na ñoo xam ne ñii ñooy liggéey ci ay côté ñoo koy gën a soxla bunt bee ñu jàkkaarloo kañ fa teg dañ na ko ku amul masque bu mu dugg fii kon jaajëf Pape fekk nga fi ay ñu la jàngaloon tey yàlla nga ñëwaat fii yow it fekk fii ñoo jàngal yéen ñi ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla ci turu Mariama Sarr di leen gërëm di leen sant di leen sas yoon wi ngeen jaar bu leen ko wàcc Kaolack ngi ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi leen di jaajëf jële ngeen jëf.